asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gis ngeen tey nag ñu ngi toog fii nga xam ne nii mooy Yoff si côté océan bi géej gi ah. ki ñu jàkkaarloon nag kër de lion lañ koy wax Balla Diouf bëri na ba bàyyi bëri mais nag li tax day ñu ñëw seet si ko taala lenn la fan yi association des lutteurs en activité dañ ci dégg ay démission ay kii dugg na kii génn affaire yooyu ñu bëgg lu leer comme sénégalais yi dañu ciy bëgg lu leer ñun tamit lu leer la ñuy bëgg muy am te Balla mi yaakaar naa kuréel googu am na ca kàddu wala am na rôle mu ciy joué maa ngi lay ziar waaw salaamaaleykum maa ngi lay delloo ziar di nuyu waa Leewtoo TV yëpp ah, di wax ni vraiment ku yokkul yaa waa te yokk ngeen di leen jaajëfal Leewtoo moom nitu làmb bu mu soxla donc du bañ du hésiter parce que xam nañ ne suñu biir lañ bokk donc seen déplacement bi neex na ma trop parce que lii dangeen ñëw pour leeral ci li nga xam ne yéen a ngi koy dégg waaw di wax ni jàmm la rek. jàmm la rek xam moom léeg-léeg Sénégal dañoo tàmm bu déggee dara léeg ñu jéem ci dox jàmm wala ñu gëstu ba xam xam li xew lan la door ci wax dañuy dégg tël rek ni damm na mais jàmm rek moo xew. Mhm. parce que fan dañu dégg ci seen association boobu nga xam ne moom ngeen yore muy les lutteurs en activité ñu gis leen at yëpp ngeen di défendre intérêt mbër yi. wala sa intérêt lamb en général mën nañ ko wax parce mbër mooy lamb mbër bu amul lamb du am ñu xëy gis ne que président bi démissionné na ñu teg ci quelques heures wala quelque nangam ñu déggaat ne Balla Diouf tamit démissionné na maanaam démission yu bëri yooyu lu ko indi kuréel baa doxatul wala da ngeen a gedd wala lu xew non gedd moom amul te kuréel bee ngi dox macha allah sant yàlla mun naa ne wax ni sax léegi euh, association de lutteurs ni muy doxee léegi daaw ko woon doxee parce que léegi boo xoolee am na ay jeunes yu dynamique am na ay jeunes yoo xam ne vraiment euh, intellectuellement parlant euh, am nañ niveau te ñu ngi fi nekk suñu wet ba pare am détermination di ñu gunge depuis boobu dañoo toog gis ni rek foo toog 12 ans di diriger tey lii lañ doon ñaan yàlla tey sunu grand yi fi nekkoon parce que boo xoolee association des lutteurs Manga moo ko taxawaloon nekkoon fi at ñoom Mbaye Guèye at ñoom Tafa Guèye ba Manga demee Tafa yi moo fi nekk te continuité la rek ku ci nekk ba nga defee sa temps war a dem da nga former ñi fi nekk tey Tafa yi moo formé Xaadim Gadiaga ba Tafa Gueye yi nekk président moo Xaadim moo nekkoon secrétaire général am tey ba fi Tafa jógee ah Kayre moo ñëwoon ñu gunge ko nekk ay jeunes parce que boo xoolee mille 2007 ba léegi mun naa la wax man sama combat at euh, Modou ci réunion association bi la taxawee. 2008 donc ñu nekk fi boobu ba léegi tey di defendre li nga xam ne mooy intérêt mbër mooy intérêt làmb d'une manière générale te boobu ba léegi ñu ngi ci ñu nuuru loon ma nuuri ay ambition yu yàgg nag pour arrêter parce que bàyyi naa bëre mais bàyyiwuma làmb lépp luy doxal làmb at luy luy sagal mbër luy jox respect mbër at dignité mbër conviction la boo xam ne du dañ à mais li nga xam ne nag mooy post wala position wala chaise bi nga xam ne moom laa occupé woon au sein de l' association ma toogkat ba xalaat ni gunge bu yàggee day soof te ñun boobu ba léegi ñu ngi revendiqué ni ñi ñuy diriger depuis vingt cinq ans ñi ngi fi di xeex loolu te ñu ñuy gunge loolu noonu ñi nga xam ne injustice la wala ñun su suñu côté xalaat nañ ni loolu dafa ëpp parce que nguur kenn ko ñedd ñu xalaat ni ñun ñii tamit war nañu parce que tamit boo xoolee presque douze ans wala treize ans ñu ngi ci association bi di diriger te am nañ ay rakk yu yu ko matee yu fi nekk yu yu yu yu déterminant léegi balaayu génération boobu di nax saay ñun bàyyiwuñu dem fenn gedduñu wala kenn daf ñu puus wala dafa am dara lu ñu naqari ñun ñoo dem ba gis ne am nañ jeunes yu dynamique ñu xalaat ni kat post responsabilité yi ñu yor war nañ leen ko mën a jox ba pare nekk seen ginnaaw encadre leen teewul lépp lu ñuy xeex ñu ngi ci biir lépp li nga xam ne mooy lépp lu ñuy wax pour làmb jëm kanam wala pour mbër am jàmm wala pour làmb rafet ñu koy engagé wu di ko xeex ñu ngi seen ginnaaw comme ñu ko ñoom grand tafaga yi defee ñu ko ñoom grand boy kayre defee tey loolu suñu rul la ñun tey du ñu jox booy bi booy poussé bi ba pare di leen bàyyi muy réer seen loxo dañ leen di accompagner gunge leen ci démarche bépp bi nga xam ne démarche bu noobul la ñu ngi koy def ci millier làmb mais amul dara lu ñu naqari boo xoolee boobu ba léegi ñu ngi waxtaan suñu biir di trouver ay consensus ñu ngi ñi ngi préparer pour def assemblée générale mais avant assemblée générale ñu ngi waxtaan tous les jours amul benn ponk ñun ñëpp ñu nekk ci association bi ñëpp muy mag ñi ñi fi nekk muy ñoom grand Mansour Diop ba ci ñoom Tafa Ladda Guerre ñun ñëpp ñu ngi waxtaan tous les jours di xool naka la ñuy organiser affaire yi ba nga xam ne dina gën a rafet dalal suñu xelu rakk yi ba pare jox leen responsabilité yi ba pare gunge leen et je pense que loolu warul mën a am coow. amul benn coow bu ci am. démission yëg nga ko yow wala yéen groupe yëg ngeen ko. loolu yëpp waxtaanee nañ ko suñu biir ba pare parce que xaarim avant muy jël acte boobu je pense que waxtaanee nañ ko parce que bëggoon nañ ko def bu yàgg bañ ko bañ jëlee décision pour def ko dafa am benn xeex bu ñu fi fekk. mooy li nga xam ne tey moom lañ doon revendiquer mais dañ mësu mës wax ni ma xaarim at gars yi ñëpp kër bu xeex bi jaaxee suñu rakk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal dinañ leen dooleel jox leen affaire yi nekk seen ginnaaw donc loolu lu ñu waxoon la et je pense que xaadim li mu def nii bettuñu bettul association bi kenn parce que ñëpp xam nañ ko parce que wax na li tax mu bëgg mu bëgg mu bëgg a démissionner parce que tey actuellement. Khadim yan motif la joxe moom. waa motif yi mu joxe moom dafa leer nañ que nii voilà te ñun ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko bien bu ko waxul sax xam nañ ko que nii actuellement ci li nga xam ne moom la engagé wu muy ci def carrière politique tey permettre ko ci niveau bi mu tollu tey mu nekk di diriger association bi bàyyi li nga xam ne mooy ay ambition politique am tey. Khadim il est appelé à candidat ci euh, ci élection maire yi ñu jëm pour parcelle. maire parcelle la Khadim bëgg laaj. waaw am na ci droit parce que ay ambition la rek nit ku nekk sa adduna àdduna am nga droit nourrir ay ambition tey ay ambition foofu la toll. et je pense que dem na ba xalaat ni tey mu consacré wu si carrière politique am tey jot na. at li nga xam ne defal na ko association des lutteurs en activité yëpp wax dëgg yàlla du ci jotam du ci taam du ci alalam du ci ñàkkam dégg na ci lu nekk gis na ci lu ne daj na ci lu ne mais gàcce ma parce que indi na ko ba fii ba pare am am grandeur at audace taxaw kenn puusu la kenn merewu la kenn xasu la kenn ŋàññu la kenn waxu la dara nga toog am grandeur kat ni ah fii ma toog kat dem naa ba gis ne am nañu ay rakk yoo xam ne war nañ ko mën a war nañ mën a remplacer loolu noblesse la mu jël décision bu noble ñëpp nangu ko nangul ko ko apprécier ko ba pare di ko accompagner tey euh, assemblée générale bi ñu jëm Xaadim moo koy defar moo koy moo koy organiser ñun ñoo koy organiser donc du ñu bàyyi rek dem dañuy jamais dañuy organiser un assemblée générale topp procédure bi comme nu mu war nu mu installé ñi ñu war a jox leen leng yi ba pare nekk seen ginnaaw di leen gunge day continuer. Euh, Karim am ngeen satisfaction si li mu diiran mu jiite association ba tey. total satisfaction totale ci détermination ci engagement ci vraiment euh, lépp lu association bi mën a mës taxaw di ko revendiquer mi ngi ci kanam musul daw musul làqatu chaque jour mi ngi ci kanam tey loolu moo doon sunu devoir lépp li nga xam ne tey mooy dooleel mbër wala mooy vraiment mooy tax mbër mën a def carrière bu apaisé wala mën a nekk ci làmb di ci dund am ci xel mu dal règlement yi jaar yoon ah, lépp jaar yoon làmb di dox comme ni ko ñëpp bëggee ba pare ñëpp gis ci seen bopp te je pense que engagement yooyu tey xaadim honoré na ko je pense que tey xaadim ay ay félicitations la mérité ah ay ay vraiment tey mën naa wax ni mondu làmb képp kuy mbër amal nga xaadim gajaga njukkal parce que tey carrière am yëpp ci daw ci mbër la ko nekkee tey boo xoolee ba fi Manga nekkee mu ngi fi woon nekk xale bu ndaw maag moom nekk ci biir capitaine PK ñoom grand Lac de Guiers ñu dem ba ñoom Manga dem ñoom grand Tafa nekk fii ñu àndaat ak ñoom nekk ay xale yu ndaw màgg ci affaire bi ba tey dem gérer responsabilité ba tey toog fi 12 ans mun naa wax ni tey war nañ mën a jox booy yi seen chance jël responsabilité yi jox leen booy yi leen ci yoon bi wax leen lan mooy conviction ak lan mooy engagement ci li nga xam ne tey mooy intérêt général yi nga xam ne tey moo moo moo moo moo ñor mbër yi tey je pense que toll nañ foo xam ne mbër yëpp war nañu éveillé wu. lool nañ foo xam ne mbër yëpp war nañu xam ne conscient que ni làmb dafa war a développer war nañu mën a di pencoo di organiser di waxtaan di xaar si suñuy dirigeant tamit ñu considérer ñu considérer ñu mooy tey lépp lu am lu lu soxal làmb buñ koy def ñu boole ñu ci parce que am nañ ci xalaat bi mën nañ ko te et puis on n'est pas des ignorants te ci làmb lañ bokk suñu carrière ci làmb lañ ko def nañ ñuy boole ci li ñuy décider parce que ci làmb lañ bokk. décision yi ñu mujj jël jëmale ko ci wàllum làmb rawatina ministère des sports yu mel ni ki noonu yéen est-ce que loolu gis ngeen ci seen bopp wala. waaw loolu dañ koy saluer dañ koy saluer xam nga lu tax ñu koy saluer Sénégal bëri na ñuy revendiquer wu te amuñu satisfaction ci lu ñuy revendiquer wu ñun à nos niveau à li ñu doon revendiquer yëpp amuñu ci satisfaction totale mais il y a un pas am na benn un pas bi nga xam ne tey ministre bi def na ko te loolu dañ ko ci féliciter di ko ci encourager di ko ci remercier parce que tey mënoon na ko bañ a def làmb cooway bëri rek mais def na un pas dañ ko ciy félicité même bu fekkee ni tey li ñu bëggoon yëpp ñu def ko tey ak ni ñu bëggoon ñu sélectionné bureau bi ak ni ñu ko waroon defee yëpp tey. 100 pour cent amul. pour cent amul. mais am na ci loo xam ne am na parce que am na ci loo xam ne tamit waxaguñ ko ba léegi am na loo xam ne tey ñi ngi doon xaar tey ci décision yi tamit ñu tudd ko ñu touché ko mais ba léegi waxaguñ ko mooy li jëm ci wàllu assurance yi ci façon bi ñuy assurer mbër yi ak ci yenn condition la ñuy assurer mbër yi parce que boo xoolee mbër bu nekk ñu ngi jël 1 pour cent sa assurance xamoo ban ba léegi làmb xamuñu ban assurance mooy assurer mbër yi xamuñu naa assurance vie la wala assurance ci vois xamuñu benn détail benn matière ci mbiru assurance boobu te boobu ba léegi kenn waxagu ci yaa un ordre ñu ngi siy déglu ministre bi ak suñuy suñuy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite aspect boo xam ne ci point yi ñu ci la bokk mais ba léegi gisoo fenn fu ñu ko mentionné dix mille francs yi ñuy jël ci licence yi sept mille francs mooy licence bi trois mille francs euh, bi la jëm bëgg nañ xam tamit ban genre assurance la naka lay assurer mbër yi donc point yooyu ñoo xam ne moo moo ci des nga xam ne amaguñ ci satisfaction bëgg nañ ci am satisfaction beneen bi mooy li nga xam ne tey mooy euh, sortie euh, délibéré yi léegi foog nga def ñaari sortie wala ñetti sortie nga door a commencé am sanction apprécier nañ ko apprécier nañ ko mais il faut que mu doon sorti délibéré nga xam ne mbër bi moo refus de combat la moo ko tey pas ay mbër bëre te làmb nu mu méttee da gis ay mbër dóorante bëre ba jàll te loolu dafa demoon ba traumatiser mbëri yi mbër dañuy nekk ci làmb tiit du ñu nekk à l'aise tiituñu ndax seen adversaire mais dañuy tiit ndax les milliers de sanctions yi nga xam ne lu ndaw rek on te pardonne je pense que diriger dafa ànd ak yërmande te surtout booy diriger ñoo xam ne wax dëgg yàlla 80 euh, pour cent c'est des analphabètes war nga mën a def yërmande parce que yow xam nga ñi ngay diriger jànguñu yeewuñu mais bu fekkee ñi ngay diriger doo leen pardonné dara te yow boo jógee ne taxaw ni mbër yi ay dof lañu mbër yi jànguñu ba pare te doo leen pardonné kon seen dof yow yaa ngi koy yokk yow éveillé leen te làmb ay dirigeants yuy éveillé mbër yi lañ soxla di leen éveillé di leen tàggat di leen jiite ba pare di leen tàggat ci àdduna parce que ñëw ay dirigeants mais ay. ay kii la ñu bëgg num ay éducateur la ñu bëgg ñi nga xam ne dañuy ñëw ci làmb di diriger ba may di éduquer waale mais pas xew rek nga fëgg pas lu xew rek nga fëgg aucun pitié ñun loolu la ñuy demander solennellement yërmande rek la ñuy demander parce que règlement ala kulli alin foog mu am règlement faw mu am sanction faw mu am xam nañ ko mais na na na na na na na clair na na am yërmande na tegu ci yoon daal ba nga xam ne nit ki buñ la sanctionné sax yow sa wàllu bopp yaay assumé say erreur taxaw publiquement ne kat maa tooñ maa ngi jéggalu mais dañ lay tooñ ba pare imposer la nga jéggalu yooyu na yooyu yëpp ay point la yoo xam ne ñu ngi ciy xalaat ñu ngi encadré suñuy rak ñu ngi jëm ci assemblée générale ñu ngi koy organiser ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy réunir tous les jours di xamal sénégalais yi que ni biir association de lutteurs amul benn problème yooyu yëpp amul. am na solo léegi fi may ñëw mooy fi ñuy jeexale mooy dafa am ko bokk ci yéen ci kuréel bi di Gris ñu ne dafa gënoon def déclaration ba ñu convoqué woon ko fi bi ñu ko convoqué muy ji CNG li ñu mujj a jàngat fan yi passé mooy bi ñu réunir ñoom ba pare dañ ko aj un an nga xam ne avec sursis la yéen loolu nu ngeen déggee nouvelle boobu. waa nouvelle la boo xam ne man du ma mës a neex personnellement loolu c'est mon avis personnel du ma mës a neex parce que tey bu nekkoon ci benn benn benn benn mouvance boo xam ne tey on on avait fait face avec le CNG pas avec. telle personne ou telle personne mais avec le CNG pourquoi le CNG c'est le système système bi nga xam ne tey moo ñu tënk ñun mbër yi ñi nga xam ne tey lépp lu ñuy dogal ci mbër lépp luy neex mbër ak liy metti mbër ci système boobu la jóge ci système boobu lañu doon xeex mais tey boo xoolee ku nekk jug na fi nan Alioune Sarr lañ doon xeex ñun amuñu benn problème ak présent Alioune Sarr mais système bi nga xam ne moo tënk mbër. mais système boobu Alioune Sarr a ko jiite. mais moom laa lay wax système bi nga xam ne moo tënk mbër président Alioune Sarr moo ko jiite donc bu ñuy wax ci système bi foog ñu wax ci président Alioune Sarr parce que gestion am la mais ñun ñëpp ko respecté tey li ñu doon xeex tey ba ñu demee ba solution am ci ñu xalaat ni kat un pas am na ci te peut-être à l'avenir deux pas dina ci am trois pas dina ci am je pense que dina continuer moo tax tey ñu am yaakaar que ni tey. ñu ñu diriger bu ñu demee tey ba ñun ñu def en face ak ñoom nga xam ne ay nit ñu respecté lañ mosuñu jóg def face ak ñoom lu ñu mësi décidé même bu ñu neexee bu ñu nekkul ñu ngi ko ñu ngi ko doon nangu bu àdduna doxee ñun ñu dem ba jóg tey jàkkaarloog ak ñoom di revendiquer je pense que ñoom war nañ ci tirer benn leçon bu mag et je pense que à l'avenir dinañ ñu sóor ci loolu sóor ci mbër ci loolu ba nga xam ne tey lépp lu ñuy defati dina doon pour l'intérêt général pas pour ay intérêt personnel mais Gris moom sanction boobu moom àndu ngeen ci daal man personnellement ànduma ci parce que tey CNG dañ leen doon xaar ba lii yëpp jeexee ba ministre bi jël benn cahier de charge teg seen taable ñu changé bureau bi yaatal am ñu ñu dugal. am na ñu dugg de ba moom tey seen dugg na Yékini dugg na. am ñu ñu dugal te ñooñu ñu dugal tey tey bëggoon nañ tey loolu yëpp ñu leeraloon ko cahier de charge bi ñu leeral ko Sénégalais yi. ñii ci yan lañ yan yan responsabilité lañ géré parce que ñun bu ñu toogee ne tey Yékini at Tyson ñoom ñoo représenté mbër yi foofu te ñu gis ni ñu convoqué Gris Bordeaux ñoom wu ñu ci kon ñoom toog seen toogaay pour mbër yi foofu ban ban ban importance la am. est-ce ñoom ñoom rek mën nañu génn wax noonu ci seen tour parce que léegi dañu bokk ci comité. non pas seen tour parce que ñoom boo déggoo Tyson boo waxee ba mu communiquer dafa ne ne sunu rakku mbër yi ak sunu mbokku mbëri yi xam ne ñun fii ñu nekk ñoom lañ fi nekkal. Tyson Tyson da nga bëggoon ñu défendre Gris daal. no pas ñu defendre gri mais ñoom ñu nekk fa comme comme comme miluwaaru yi nga xam ne tey mooy seen rakku mbër yi ak seen doomu mbër yi ak seen moroomu mbër yi nga xam ne ñu ngi ci làmb di subir système bi donc euh, voilà noonu la demee quoi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm association des lutteurs bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di gërëm ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu wóolu woon ah teg ñu suñu kanam ba pare mosuñu ñu faqasal di gërëm ñi nga xam ne tey ñoo ci nekk tamit di di régulariser mu ki ci mel ni ñoom PK ñoom grand Mansour Diop grand Mansour Diop kenn amul fayam grand Mansour Diop depuis itali wax dëgg yàlla tukkiwul mu neex rek mu fàtte réewam chaque jour mi ngi ñoŋal di conseiller xale yi di wax ak xale yi PK nekkee noonu la de guerre ba nekk États-Unis nekk noonu parce que boo xoolee groupe WhatsApp yi loolu tax mu am solo loolu moo tax parce que ñun ñëpp ngi ci grand yëpp ngi ci tamit nu ñu doxanee léegi amul woon bu njëkk tey dañu nekk ak léegi suñuy grand ci benn group nekk xale yi ki kuy bëri quatrième combat ba ay ancien mbër ñëpp dañuy nekk ay heure heure di waxtaan ku nekk jox sa moroom cër loolu dafa rafet ñu ngi ñaan yàlla mu continuer te gars yi ba kenn bañ ñu xaaj xaajale nañ ñu bàyyi di xaajale parce que ñun ay mbër ñoo dem ba tànn décider bëgg ànd nañ ñu jàppale suñu ànd boobu ñu ñoŋal ko ñu bañ ñu xaajale jërëjëf jërëjëf